إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء borom bi subhanahu wa taala mu ne man du ma jéggale ku bokkaale ak man képp ku bokkaale rek borom bi ne du ma la jéggal mooy mooy kan mooy ku dee ci biir bokkaale bi wa amma ku doon bokkaale yëg ne bokkaale la mu daal di ko bàyyi borom bi subhanahu wa taala mu ne jéggal naa la lépp bokkaale ba sax damay far defaat ko iman ndaxte ñooñu la borom bi subhanahu wa taala junjoon yubaddilu llahu sayiatihim hasanat borom bi ne damay walbati ñaawteef ya ñu defoon ma ne malaaka yi ñaawteef yooyu bind leen ko tiyaabo ndaxte waa ji tuub na kon ku dee ak bokkaale la ñu dal di wax kon xoolal danger woo ku dul yàlla masalan nekk ci oto rek yëg ne accident ñëw na rek nga woo ku dul yàlla faatu nit ñi jàpp ne ku baax dee na waaye fekk maata ala shirk fekk ci lan la faatu shirk ci bokkaale moo tax doomu aadama daa war a ragal bokkaale lool muy góorgóorlu ci liy dëgëral imaanam ba mu dal di sori lii nga xam ne mooy bokkaale ñaareel bi bi nga xam ne day tax iman dal di dem mooy an tajala baynaka wa bayna allahi wasaa'ik tad'uuhum wa tas'aluhum shafaa'a wa tatawakkalu alayhi mooy nga wut intermédiaire sa digganteeg yàlla nga wut yow ku lay lënkale ak yàlla yàlla mu ne man bëgguma loolu man li ma bëgg xol bi maag moom direct loolu itam day tax nga dal di génn ndaxte la nga doon defal yàlla nga leen di defal atabarruk bihim wa an tahmidahum wa tatawakkal alayhim wa taxaafu minhum wa tataqarrabu ilayhim ah loolu nga doon defal yàlla bi mooy lan mooy looy defatit ñoom ngay barkeelu ci seen tur doo barkeelu ci turu yàlla de ci turu kooku nga jàpp ne moo lay yóbbu ci yàlla kon yow léegi ci kooku rek nga yem booy lekk ci turu jiw ngay lekkee boo suuree jërëjëf kooku ngay dal di wax te kooku ngay bëgg kooku ngay topp kooku ngay ragal kooku ngay tiit kooku ngay ñaan borom bi subhanahu wa taala mu ne kon man yow kat joteetuñu leen kon nit ki warul wut intermédiaire mushriku makka ñoom loolu la ñu waxoon laata manaata ñooñu ñëpp boo gisoon ñu leen doon woo musriku makka ñu ne xam nañu ne duñu dundal duñu rey duñu wërsëgal duñu taw waaw yaatura lu tax ngeen leen di woo li yuqarribuna ila allahi zulfa mu ne ndax ñu ñoddi ñu fekk ñu yóbbuñu ca yàlla borom bi subhana taala mu ne déedéet bokkaale ngeen kon lu mu wute wutewul ci lenn bi pas-pas bi moom benn la xanaa jokk bi rek moo wute yow nit nga jokk luy dund nga jokk kale lu dee xërëm la jokk woon waaye yi nga bëgg ci nit ki moom la bëggoon ci xërëm bi xëy na civilisation moo toll woon foofu rek te jamono jàng ko doon def am na ñu ko defoon it borom subhana wa taala ne déet am na ñu ko def borom subhana wa taala ne déedéet am na ñoo xam ne ay malaaka la ñuy jaamu borom bi ne uuhu am na ñoo xam ne ay yonent la ñuy jaamu lu mel ni Isa bnu Mariama borom bi ne uuhu am ñoo xam ne ñi ñuy tuddee al awliya la ñuy jaamu borom bi ne déedéet am ñoo xam ne itam ñoom ay xërëm la ñu yore ay xàmbak ay yeneen yooyu yëpp borom bi ne déedéet mën a xol bi leneen du nekk suñu diggante abadan man ak lan ak xol bi direct boo pakastaloo allah booy lekk bismillah boo suuree alhamdulillah booy ñaan yaa allah allahum moo tax borom bi ne udu llaha aw udu rahmana ayyan ma taduu falahu lasmaul husna kon ñaanal yàlla woowee ko nag ni mu wax ne noonu la noonu la tudd allah wala rahman wala rahim gafour razaq kon woowee ko ca yooya kon loolu itam lenn la loo xam ne day rëyu iman ci biir xol ñetteel ba man lam yukaffiril mushrikin koo xam ne jàpp na ne bokkaalekat yeeg yéeféer yi maanaa amaan na maanaa duñu nekkuñu ñu wét ci islam ndax dañuy jàpp ne lépp diine la niñ ko bugg a jàppee léegi ci dialogue yi ñuy wax dara duggulu ko lu dul mabbu pas-pasu jullit bi waaye ñun dëgg-dëgg ban dialogue ñun lu ñuy dialogue ay sëy ñun da nga gis jullit ak yéeféer bokk kër mais benn jafe-jafe du am kon ku ñuy dialogue yow jullit bi nga bàyyi sa pas-pas bi nga xam ne moom ngay fas nga jël pas-pas bale nga xam ne mooy pas-pasu salut nga xam ne mooy pas-pasu kull shay nga xam ne mooy pas-pasu benn ci ñett yi wala pas-pasu lépp benn la loolu iman bi di dem di dem di dem di dem ba jeex ki yore ay xaaw yore ay xamb yore lu ne ñun luñ koy tuddee sëriñ ah ki toog fii nga xam ne moom ñan lay responsabiliser al mujrimin ay mujrimin ñoo xam ne ay bande ki saay-saay ak i mbër ak i musicien ak lu kenn xamul ñooñu lay jàpp ne topp naa leen jox naa leen garaat ban garaat nga leen jox xanaa garaatum mboon yoo leen jox kon il faut ñu xam al mushrik mushrik la kaafir la képp ku waxul ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah gëm ko jëfee ko yéefér la bés penc lu texe moo tax yéeféer de dee nag ni ñu jàngal ko kaamil la hawla wala quwata illa billah yéeféer noon yàqkat dund ci kéeféer ba faatu nga xam ne dañ ko waroon a laanu ñu ne dañ koy jàngal ay kaamil yàlla yërëm ko ñi bokkoon ca jàng ba ñu gëmoon loolu kafaru billah ah borom bi moom déclaration bu leer la wax إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أين؟ في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية kono déclaration bu jógee ci borom bi subhanahu wa taala la déclaration bu jógee ci borom bi subhanahu wa taala la te junj na juif ak nasra te la mu jiital mooy kafaru ñi weeti te ñuy askana leen seen bopp ci juif ñi weddi te ñuy askana leen seen bopp ci nasaraan ak bokkaalekat yi mu ne ñooñu moom naaru jahannam ndaxte ñu bon lañu ñu yées lañu kooku génn àdduna nga ne yow gëm nga alquran aaya boobu mu ngi ci alquran nga ne danaa ko jàngal alquran yàlla yërëm ko kii day fo ata yàlla am kooku day fo lan moo indi loolu nag laa imaana lahu ngëm bu dëgër la amul mu jàpp ne rek lépp benn la lépp benn la lépp du benn de déedéet am na loo xam ne huwa alxaqu waaye am na loo xam ne huwa albaatil am na loo xam ne mooy dëgg waaye am na loo xam ne it mooy caaxaan kon yéeféer yooyu il faut nga d'accord ne yéeféer lañu nga d'accord ne seen programme baaxul nga d'accord ne seen pas-pas baaxul nga d'accord ne balaa ñuy am jàmm nga fekk si leen walam tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum mu ne ñooñu duñu bëgg ci yow mukk lu dul da nga leen fekk si ñoom ci seen bopp wóor na leen ne dañu weddi borom bi subhanahu wa taala ne waddu law takfuruuna kama kafaru fa takunuuna sawa borom bi de bés bu nekk dañuy mébét yéen waa ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen weddi ni ñu weddee ngeen daal di yéen parce que ñoo xam nañ dañu wét wóor na leen ñoom xam nañu ko de waaye léegi nag partenaire la ñu bëgg ci naaru jahannam kon ku sàggan nag ba bokk ak ñoom foofu yaatooñ sa bopp iblis mu ngi gémbu moom wóor na ko ne lu borom bi subhana wa taala wax yépp loolu mooy am la am la anna jahannama minka wa min man tabi'aka minhum ajmain mu ne yow laay feesalee jahannam ak këpp ku la topp moom xam na loolu kon fokk mu wut partenaire la aqudanna lahum ala siratika almustaqim mu ne ah yàlla loolu la kon ci sa yoon wu jub wi laa lay xaar seytaane xaaru la ca caaxaan ba déedéet ci sa yoon wu jub wi mu ne ci laa leen di xaar dinaa jaar ndeyjoor dinaa jaar càmmooy dinaa jaar ci kanam dinaa jaar ci gannaaw bés péncu doo fekk mukk ñu nekk ñoo ñoo gërëm kon seytaane moom mu ngi jëm jëmam noon bi tam mu ngi jëfub jëfam kon doomu aadama bi da ci war a bàyyi xel beneen bi ko ñette ñeenteel mooy al itiqad bi anna hadyi gayri nabii sal allahu alayhi wa sallam xayrun wa akmal min hadyihi sal allahu alayhi wa sallam mislu l anzima al wadiya wa qawaniniha mooy yaakaar ne am na njub bu gën a baax njubu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar loolu képp ku yaakaar loolu rek nga xam ne imaanam dem na am na njub bu gën njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon waaye boo topp mu safaanoom njubug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku jëmalewu la ci iman de daf lay génnee ci iman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu koy firi ci aaya qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana min al mushrikin ba muy firi aaya boobu mooy sama yoon a ngi nii loolu déclaration la sama yoon a ngi nii dafa jub kocc dëngul fenn man nag ca yàlla laa jëm adu ila allah man yonent bi ak képp ku ma gëmit booy woote moom ca yàlla la jëm du ma bokkaale ba nga koy fii nag xatta xattan mustaqiman wa xuduutan maailan mu daal di rëdd benn rëdd bu jub kocc mu ne yoon waa ngi nii amul lu ñuy nëbb amul lu ñuy làq amul lu ñuy jagleel ak sant amul lu ñuy jagleel ak kër te loolu rek ngay jaar nag libéré wu leneen lu dul loolu boo ko jaaree dañ lay tënk dinañ tënk sa xel dinañ tënk sa bëgg-bëgg te dinañ la def jaam yàlla dong ngay gëm jaamu ko mu yore la leneen lu dul yàlla lu mu mën a doon nag boo ko gëmee rek topp ko rek nga yore ko gàllaaji ku ko gàddu yow yaay guddi guddi ak gàllaaji kër gi bu doon lakk yaay sonn nit ki bu bu ko joggee yow yaay xul garab gi nga yaakaar ne dara la ku koy nemmeeku bàmmeel bi ngay wër ku koy bale ku koy tabax kan moo fay taal cuuraay di taali sondel di def xet bu neex kan moo koy def yow kon yaay jaam bi lu mu mun a doon nit ki nit ki ci boppam kuy joxe kuy raam kuy ñaanlu mais yow la kon yaa toro te lenn rek la la mënaan de tëb lii la nga dem maa ngi daw xëy la daa yore lu dul loolu yàlla nag boo ko nee maa ngi mu ne la loo bëgg wax ma loo bëgg rek wax ma bu dee alal mu ngi bu dee kóllëre mu ngi bu dee kóolute mu ngi bu dee sécurité mu ngi bu dee tedd mu ngi bu dee mucc mu ngi loo bëgg rek borom subhanahu wa taala mu ngi waaye keneen ku dul kooku nag noonu rek laay dal di mel loolu moo tax bépp njub boo yaakaar bu dul njubu Moustapha rek na la wóor ne nekkoo ci njub ci ndëng te nga ne ndax kooku dong la borom bi seppi nag def ko ñaar de waa in tuuti uuhu mu ne gis ngeen kii jële waa mu ne bu ngeen toppee gannaawam jub de ah dina ko attention dañuy posé question indana awliya indana nuqaba indana aqtab ah indana saada ah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam attention ñun dañoo am ay sang am na ñu ñuy tuddee ay wali am na ñu ñuy tuddee ay qut am na ñu ñuy tuddee al xaws te al tur yi mooy lan borom bi subhanahu wa taala tontu na de in hiya illa asmaun sammaytumuha antum wa abaukum ma anzala allahu biha min sultan borom bi ne tur dong la de yéen ak seen bàyyi du benn dëkk kii xutbu la kii xawsu la kii naqib la kii nangam mu ne yéen dong de yéen a ko sos de laa fi kitabillah wala fi sunnati mustafa sallallahu alayhi wa sallam fu ngeen ko jëlee ittibaul hawa topp bakkan bi rek ndaxte am na beneen fu mu ko leeral إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن mu ne dañuy yaakaar rek dañuy topp seen sago dong waaye njub bu jub kocc jóge na ci borom bi ñëw ci ñoom mooy wa in tutiuhu tahtadu kii daal su ngeen ko toppee jub waaw ñëlee nag ah borom attention wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah ah ki ma la wax boo ko bàyyee koo mun a topp nag yoonu yàlla moom wàccee na la ko xanaa yoonu baayam xanaa yoonu maamam xanaa yoonam moom ci boppam waaye yoonu yàlla bi moom mu ne ah mu ne wàccee na la ko ndaxte boo xamee yàlla roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo koy doyee moo tax déclaration yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom dong moo ko ñeme amul keneen ku ko ñeme qul innama ana basharun mislukum yuha ilay annama ilahukum ilahun wahid innama ana basharun mislukum yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ah nit laa ni yéen yàlla damay dee rek ma waxal leen de laa amliku lakum darran wala rashada qul inni lan yujirani min allahi ahad gis nga mu ne yoreelu ma leen dara nag mu leen yaakaar yoreel naa leen dara de aljanna yoreelu ma leen ko wërsëg yoreelu ma leen ko njub yoreelu ma leen ko yoreelu ma leen dara ana basharun mislukum nit laa ni yéen dañ may wax ma wax leen amul déclaration boo amul kenn ku ko ñeme ku ko ku ko déclaré woon suba nga gàddu sa sémmiñ ruujal sa bopp ndax parce que lu tax ñu lay ruujal yaakaar ne inda ka sey boo tax na ne yore wu ma moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ruujaloon nañ ko kenn ruujalu ko ndax raamal nañ ko kenn raamalu ko ndax bañ koo ruujal bañ koo raamal tere na mu siiw laa la abadan boo déggee nit ndax ne laa ilaha illa allah nga ne ko muhammadun rasulullah naam parce que njub la borom bi subhanahu wa taala njub laay daal di yëkkati beneen bi ko juróomeel boo xam ne day tax nit yi yëg ne imaanam dem na mooy albuxdu mimma jaa bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mooy mer lenn ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi nga mer ci sabote ko yëg ci sa bopp mbubu bu gàtt sikkiñ jigéen bu muuru bañ a joxe loxo nit ñi toog waxtu yu jot nga dem julli ji boo ko defee foo ko def léegi ñu xas la cam xool ko mbubbam bu gàtt bii te mooy sunna kooku zahaba imaanu cam xool ko sikkiñam bi mooy sunna zahaba imaanu cam xool ko muuraayam bi sunna zahaba imaanu loolu képp kuy bañ loo xam ne am njub la ak sharia la na la wóor ne iman ba moom dafa dem ndaxte bu demu doon dañ koy bëgg sopp ko mel noonu kon la tax xol ba bañ ko looloo tax nekku fa borom bi subhanahu wa taala junjoon na anam gu mel noonu waxoon na am na ñoo xam ne ñoom dañuy woote woo bëgg yàlla gëm yàlla te boo leen woowee ci yàlla ñu dal di nen فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون mu ne boo tuddee yàlla rek nga gis nit ñi mer waaye yow gë gënoo kenn gëm yàlla waay waaye man tuddalu ma kenn yàlla laa la wax kii ñu sàkk waaye gënoo kenn gëm yàlla waay yéen da ngeen a soxor waay yéen da ngeen a nangam waay ndaxte tudd naa yàlla mu ne parce que daa gëmul mu ne waaye noonu mu meree boo tuddoon waayam bàyyi yàlla rek tudd keneen mu ne léegi mu sol xol la jox la li mu yore kon lu ko waral kon borom bi subhanahu wa taala leeral la de amul lenn loo xam ne lu làqu la xanaa ñun ñoo du seetlu beneen bi ko juróom benneel mooy al istihzaau bi cheyin min diini rasul sallallahu alayhi wa sallam aw thawabihi aw iqaabihi mooy sabote lenn ci diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam jëf la moo xam yaakaar tiyaabo buñ ci wax amul gazwatu zaatu riqaaq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa jóg di jëm ci gazwa bu métti lool nga xam ne lu tolloog sept cent douze kilomètres mooy diggante Madina ak Tabouk te waruwaay yi matuñu te tàngana garab amul ay xeer la saxaaba yi dox nañ ba xeer yi lekk daal la ya tànk yépp booy ñooy xotti seen i yére di ko laxas ci tànk yi moo tax ñu tuddee ko xaswatu zaatu riqaaq mooy xeex ba xeexu sagariya ñuy dem ba mu yàgg rek benn waay di wax rek di wax rek gaa yi di ree ma ne cëm suñu jàngkatu quran yi ak seen mbàkku yu rëy yi ak seen mbuqat bi alqura jàngkatu téere borom bi subhanahu wa taala waaye booy saboté am na leneen looy saboté li ma sa ngay saboté alquran jàngkatu quran yi mu ne ak seen mbàqu yu rëy yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am benn waay mu ne yéen ñi naa fekk ngeen mu waxal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñii kay weddi lañu waaja daw téye ci laxaabub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmam ba da dox tànk yi di wata mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet ñun kay dama doon maye rek ngir ñu bañ a yëg coonoog yoon wi borom bi subhanahu wa taala ne mukk man kay génn naa ci sa xol borom bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ne qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadiru mu ne bul bul wax jéggale ma na nga déet weddi nga yàlla ne man suur naa bëggatuma sa ngëm weddi ngeen ndaxte bu ngeen gëmoon waay waay waay du ngeen saboté ñi man sama téere bi ñi man sama téere bi mais du ngeen ko saboté kon li tax ngeen di saboté alquran mooy ñàkk a gëm muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñàkk koo gëm mooy ñàkk a gëm yàlla kon lenn loo saboote ci li yàlla wàccee rek na la wóor ne ngëm nga dem na juróom-ñaareel bi mooy as sexer imaanuhu wa amaluhu wa taallumu mooy njabar këpp ku njabar lu walla mu njabar walla mu jàng njabar walla mu gëmub njabar faqad kafara billah wa ma kafara suleyman ولكن الشياطين كفروا لماذا يؤلمون الناس سحرا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من يهودي لعنة الله عليه dañu waxoon ne Souleymane jabarkat la te am na ñu ko gëm ci saxara yi maanaam jabarkat yi yëpp dañ ko dal di gëm ñu ne Souleymane jabarkat la ba ñu ne moom mbiram yëpp mu ngi woon ca jaaro ba fenn la de Souleymane nabi kooku yonent la loolu la ñuy wax xaw ma démb xam barki démb la ñu gis télévision benn waay boo xam ne mu ne am na benn turu yàlla boo xam ne képp ku ko xam ku jaar fa mu jaar wala lekkum ndësitam yaramam xaraam na safara lan moo dugal Abu Talib safara kon amu nabi sallallahu alayhi wa sallam yore ko yar ko ñuy lekkandoo di fanaanandoo di àndandoo tukki def lu nekk wa daxala naara xanaa yonent bi salaa sallam ismullahi boobu moom xamu ko ñu dem fa muy jeexale mu ne moom mu ngi ko yore aci kon njabar nañ ko moytu de yonent bi salaa sallam mu ne képp ku dem ci njabarkat mu waxal la nga ne ko dangay fen mu ne ñeen fukki fan boo jullee yàlla ne bëgguma waaw boo dee ci période boobu nag bu la waxalee nag nga ne ko wax nga dëgg mu ne kooku moom génn na ci diina islam nañu xool ni njabar mel léegi ci suñu société te ñoom yufsiduuna wala yuslihu ñoom yàqkat lañu ndax njabarkat bu dëgmal see kër mbaa bu dëgmal si dëkk la muy ñaan ci xolam yàlla naa fekk ñu xuloo yàlla naa fekk ku feebar bi bugg a dee yàlla naa fekk histoire yàlla naa fekk jaaxle yàlla naa fekk koo xam ne alalam dafa yàqu wala dafa réer ne loolu laay wax fookaat sax moo ko tax gis nga ñii di foo di tëgg di fecc ñoo gën jabarkat foofu moom fu muy dem jàmm rek la bëgg a dajeel ndaxte balaa ngay foo rek da ngaa am kon ku ko may la bëgg fu mu fecc la bëgg fu mu def nangam la bëgg moo tax borom subhanahu wa taala mu ne ñoom yufsiduuna fil ard dañu yàq ci kaw suuf te xoolal ni nit ñi mel ci njabar léegi mucc ci jafe na bu ñu ne njabarkat nag moo xam gisaanekat la moo xam xoolkat ci loxo la moo xam sottikatu ndox la moo xam ubbikatu téere la moo xam kay nelew ñu koy fay la kulluhum saxara ñoom ñëpp njabarkat la kulluhum kazabun ñoom ñëpp dañuy fen njabarkat lu mu la wax day fen fenkat moo gën njabarkat te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na ko mu ne al muminu laa yakzib mu ne kii gëm mu ne waaw mu ne du fen te fenkat kooku moo gën jabarkat ndaxte mun ngaa gis fenkat te du jabarkat te mënoo gis jabarkat ku dul fenkat kon loolu ñu tiire ci suñu attention ñu def ci ndànk léeg-léeg boo nekkee ci quartier da nga xam ne jabarkat mu ngi fi nga gis ñeen ñi gàddu ay weñ di ko saraxe ñeen ñi gàddu ay papier ñii gàddu ay sondeel ñii gàddu ay puso yaa tura lii am na njëriñ juróom-ñaari doomu groupe lii dafa am njëriñ toujours ci suñ jàkka ji rek la ñoo xam ne am na bu xabakat bu nekk ci quartier bi léeg-léeg benn waay nuyoo indi ay juróom-ñaari sondel wala indi nangam nga xam ne ne la wóor ne am na bu xabakat bu nekk ci biir quartier balaa mu fay jógee nag yàq yëpp yàq waa ji nangam kii moo jël sa alal eh kii mooy ko kii mooy ko booy génn defal nangam melal nii defal naa mu yéen la coono goo xam ne te moom ci boppam yataqarrab min asheytan moom ci boppam day neexal seytaane ngir mu defal ko ay mbir yow nag lam lay jox loo ci def rek yaa ngi neexal seytaane boobu loo ci def yaa ngi neexal seytaane boobu léeg-léeg damay teel a xëy bi ci intersection bi nga gis ñoo xam ne dañuy làqatu di fa teg nàkk xoolal rek li ñuy li ñuy war a lekk wal sa ceeb def suukar def lépp def nàkk tegoo ko fenn ci suuf ci intersection wala làqatu geesu dal di fa tegu nen wala làqatu geesu gisoo kenn rek sotteeku ndox xoolal coono bi rek awalam te loolu ngay def yépp li tur di seytaan nga bëggal seytaane rek xoolal rek li borom bi subhanahu wa taala indi nu mu yombee bu dee da ngaa bëgg lu la aar xeel rek génn jiital sa tànku ban sa tànk ngay jow la sa tànk càmm càmmooñ bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwata illa billah xoolal rek ni mu yombee simple làquul fee làquul fale jaru nga dem ci ma samba jaru nga dem ci ma demba copier ko léegi bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwata illa billah jeex na yaa ngi dugg ci béréb ah béréb bii moom am naa suspect ci béréb bii am na lu may ragal am na lu may yaakaar borom bi subhana taala mu ne maa la fa jiitu looy dal di wax bismillah audu bi kalimati llahi tammati min charri ma xalaq mu ne doo fa am lu la naqari nga dem sa yoon mais lii kay yaakaar na yaa xi lii yomb na waaye xoolal ñoom coono ya nga xam ne yooyu la ñuy daj ku gëm du ci dem beneen bi nga xam ne moo ko juróom-ñaareel mooy muzaharatu lmushrikina wa muawanatihim ala lmuslimin mooy bàyyi fi jullit yi ànd ak yéefir yi bëgg leen sopp leen roy leen lébét li nga xam ne moo nekk ca ñoom te am na jullit boo xam ne mu ngi ci sawet xelaatoo loolu loolu it kooku gis ci moom na la wóor ne sa iman tàggoona moo taxoon borom bi subhanahu wa taala mu ne ñu waman yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma aldalimin képp ku méngoo ak ñoom ànd ak ñoom borom bi ne ma boole la ak ñoom te dootuma leen jubal la tajidu qawman yuminuuna billahi walyawmi alaxiri yuwaadduuna man haadda allaha wa rasulah walaw kanu aabaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratahum lu tax ulaika kataba allahu الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح